cey waaw demin bi nag dañ koy rafetlu di ko ñaanal moo xam lu tax mu dem yàlla na ko yàlla defal am na solo waaw loolu lañ loolu lañ loolu lañ si mën a wax bëgguñ si sori léegi da damay ñëw ci benn combat boo xam ne dégg naa yaa ngi ci parce que man comme lamb lay dox di euh, na ma liiru jaan wulli nee na bu nu ko woote maak Lamine wala bu nu wootee bu nu ko kon liiru bu nu jëlu sa appel xam ko tere ndax ay duma la ñuy bañ li waaw coince doomu dangu dégg naa yaa ngi koy dox waaw coince doomu dangu ñu ngi ci woon ak ay partenaire waaye yàlla na sotteegul mais bëgg nañ ko waaw ndax lamb ju neex la lamb ju neex askan wi mhm. waaw bëgg nañ ko incha allah rek buñ génnee ci lii rek ñoo leen wax lan lañ ci nar ak fan lañ ci bëgg a dem ñu joxante rendez-vous ba le 8 mu may tafu di wax ne le 8 mars moom comme li may wax rek adduna bi yëpp seen bis la parce que le jigéen la waaye bisu feet la nga jël bis toll noonu nag ah indi carré national lu ñuy xaar ci wàllu culture si wàllu culture ndax ku xam Mbayang Loum ñu ne la tentatrice Mbayang ngay way lamb Mbayang moo koy way ku koy tëgg ñu ne Momo Ngom doomu Baba Ngom mu fas yéene wane ci làmb ji loo xam ne ne bi mu commencé tëgg Dakar ba tey mosu ko wane nee ndax day wane papaam wane ne moom seen kër université la si tëgg mu fas yéene indi sabar yoo xam ne nii musu ko dugal ci benn stade ah kon bis boobu noonu beneen bis ci biir bis yi kaani sadam war ci bëre junni koo ñëw de wës jàmbaar rek grand combat mu nekk journée boo xam ne ñi ci bëre tey képp koo ci wax amateur rek journée bu muy xaar la ñu dem ba Gambie jëli fa ñaari champion yoo xam ne tey sooy natt seen dayo day toll ni Balla Gaye ak ñu war leen a indi fii pour ñu présenté wu si bis boobu muy bis bi nga xam ne moom lañ jagleel yu suma jigéen duur pour Gambie la 14 juin ndax nit ki fi nga wokk fa foo xasanteeloo fa sa loxo dañoo dem Gambie am luñ fa def ci wàllaam sunu yaay Gambien la yaa ngi wax si biir wax borom ñaari national ko juumoo mhm. ndax ñaari noonu la ñuy participer ci làmbu Gambie ndaje Cheikh laa ni ma dama fas yéene làmbu Gambie di dox comme làmbu Sénégal nu mu doxee moo tax amateur yëpp nañ ñu xaar le 8 mars insha allahu rabbi arène nationale bi France ak Lekkat war fa fas yéene teew France bébé Saloum war fa jëflante bu ñu passé bu ñu jógee ci loolu nag dinañ leen wax fan lañ bëgg a dem ci làmb di wax ne rek làmb dafa xat ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay nañu jàppalante soutenirante